alors léegi nag ñu ñëw euh, da sànq da nga ne euh, dama la ne ndax vous êtes militant de de de de Pastef. militant de Pastef. que vous êtes militant sympathisant de de de de Pastef. Euh, sympathisant sympathisant plutôt. vous êtes sympathisant de de de Pastef. j'ai pas de carte, j'ai qu'une carte nationale. Mhm. sama carte nationale rek la am benn parti la mooy Sénégal képp kuy def lu baax ci Sénégal dama lay jàppale bi ko Macky defee ah au dem assemblée nekk président l'assemblée. ne nañu au oh, Karim Wade mu wax fa mu fan la dugal xaalisu Sénégal bi voilà j'étais sympathisant avec lui. ah vous vous avez été sympathisant de Macky Sall. <laughs> j'ai fait un voyage incroyable pour le voter dimanche boobu. Hmm. dimanche boobu jël na avion jël na train jël naa bateau. pour ñëw woteel Macky Sall hmm. et aujourd'hui vous êtes sympathisant de de de de Pastef. Euh, lan lan lan lan moo la convaincre ci ñoom seen projet. Mais je te dis, madame, on subit tout ce qui est corruption et tout ce qui est illégalité dans notre fonctionnement, dans notre, dans notre vie, de, des gens qui veulent développer, qui sont rentrés au Sénégal. Je n'ai pas étudié ici. Je suis venu ici en me disant, c'est mon pays, il faut qu'on se bat pour mettre ça. Hmm? D'accord bu ma demee Fouta ma dugg ci benn tool je vais t'envoyer les photos di toppatoo samay sœurs yuy ay ay nag ah beneen euh, xale bu nekkoon si man à Dakar euh, ma jëndal ko pompe muy defar taal muy defar tool ah di pomp ci dex bi di defar tool kooku xaalis bi muy dégg euh, avec sama doom sama doom baay bi ah xaalis boobu agsi woon foofu dina baax de. xaalis boobu c'était prévu pour l'agriculture voilà. et donc jàpp yow jàpp nga ne tey Ousmane ko c'est la solution pour régler ces inégalités. Ah, am nga espoir ci ci il a le livre ah non bon on est un peu politiquement on est un peu désespéré parce que ku ñëw wax ñu wax ñu li nga <laughs> wax ñu. mais moom gëm nga projet jusqu'à nouvel ordre jusqu'à nouvel ordre gëm naa ko. alors est-ce que du loolu moo créé suspicion bi parce que fii xam nga. Euh, ah, ñun ñëpp suspicion de quoi ñun ñëpp madame attends suspicion de quoi. non xaaral ma ma d'un droit bàyyi ma ma un médecin a le droit bàyyi ma ma xaaral ma poser question bi non non. Euh, non non ba su ma yeggalee rek di nga di nga comprendre. xam nga fii. nous tous qui intervenons mm-hmm. euh, yow je suis sûr que vous êtes euh, surveillés c'est la sécurité de l'État voilà dañuy surveiller les citoyens. Euh, bu fekkee ne bu leen arrangé la ñuy surveiller. kuy retirer cent ci dans une banque tous les jours kooku surveillé nañ ko. non mais am na ci personnalité cent boo koy retirer rek la banque te dit attends minutes. minutes boobu xam nga lu ñuy def. dañuy def vérification. vérification à prévenir les renseignements. Mm-hmm. Hmm? dañuy def les vérifications par jour. Ah. ci xaalis boo xam ne médecin ñoo ko moomoon. pour fay mais mais mais mais quand je parle de man neex rek ñu commencé ma surveiller. non quand je parle de surveillance. Euh, ñun ñii tey ñun ñëpp on est sous surveillance euh, et c'est au nom de la sécurité et de l'intérêt de de de l'État euh, moi je parle j'interagis avec des centaines de milliers de personnes tous les jours voilà su ma xalaatee ne on n'a pas les yeux rivés sur ce que je fais damay nax sama bopp yow Euh, vous gérez une une grande structure hospitalière euh, voilà et puis mhm. vous assumez vos positions qui casse euh, même les barrages des policiers voilà vous assumez <laughs> vos positions oh, na la leer ne euh, voilà tamit vous êtes on a deux positions vous êtes surveillé si bu ma la waxee ne bu ma daan fecc si dañ ma dañ ma ree docteur docteur yaa ngi fecc ma leen non y a docteur et Babacar Niang mais est-ce que vous... dans la politique ou dans le pays il y a le docteur Babacar Niang qui est en secret dans la chambre dans le bureau avec un malade ah qui porte sa blouse blanche mais bu ma paree dindi sama blouse. yow Babacar Niang waaw mais mais mais Abu Niang mais est-ce que du ambiance boobu. waaw est ñoom jàpp ñu ne. vous vous êtes rendu complice. complice. Euh, voilà de, de de certains actes parce que vous êtes euh, militant vous êtes sympathisant. Mhm. Euh, de de et que vous avez prêté votre clinique. Ah, euh, peut-être pour il a payé hein? voilà non waaw waaw mais vous avez mis à <laughs> disposition. il a payé il n'a est-ce que du loolu moo gën a attirer l'attention. non mais ñi voté les maires la il y a combien de maires qui sont maintenant dans l'opposition ñi voté maire yooyu yëpp euh, tey bu ñu leen listé woon ñooñu lu ñu def biir Sénégal. hein les députés la qui son presque majoritaires euh, au Sénégal ñoo ñoo leen voté y a pas des docteurs qui ont voté dedans hein voilà mais nag comme tu dis si je suis anticonformiste lanceur d'alerte pourquoi j'ai parlé pendant le Covid hmm? danaa bi ma nekkee centrale aussi j'ai eu un souvenir très très intense quand j'avais l'âge de 12 ah foo nekkoon ah est-ce que fekk nga bi bi bi Senghor di xeexaa kii Sékou Touré. Senghor Senghor di xeexaa Sékou Touré ñëpp ñu xees ni ñëw boo boo poromoon woon sànn ka tey dañ lay ramasser dugal la ci oto yóbbu la Guinée. qu'est-ce que j'ai fait tu quand j'ai croisé les mains mën naa topp ci bulu fuuti daw daw leen gaaw ferme leen seen boutique ay nga ñëw benn policier jàpp ma nii yóbbu ma ay ne ko mais yow kii Idou foo ko jëmee. Vous êtes un rebelle ou un révolté Non, je, je suis le bon sens des droits. On a le bon sens des droits humains qu'il faut respecter. Un médecin en plus qui ne respecte pas ce sens du droit, c est, c n'a pas de sens. léegi Sénégal yi lu ñuy def dañuy dañuy sot Sénégal yëpp ngi sot boo jëlee benn kenn ku bëgg nekk de président rek nga commencé di ko sonal nga def ko benn yoon def ko ñaar yoon mu dox troisième fois bi nga am problème. hein kooku ñëpp wax nañ ko loo koy bëreel mënoo ko daan. bàyyi ko nga xam nga xam fu mu jëm. mais est-ce que c'est prudent. ci sa posture bon mën nga nekk médecin nga am des convictions politiques c'est votre droit oui, mais est-ce que c'est prudent ci sa posture euh, médecin mm-hmm. ngay mm -hmm. afficher yenn position politique publique yi à que est-ce que yaa ngi respecter la la les, les, les limites c'est pas, pas même une conviction politique c'est mm de on a un droit de vote on va voter c'est pas parce qu'on vote qu'on est qu'on est à pair quand j'ai voté pour Macky j'étais pas à je suis le même Babacar Niang qu'est-ce qu'ils vont me faire la clinique on vient soigner des gens hein benn affaire bu fa ñëw bi passé di gannaaw dañuy tere ñëw fii mais man damay faju fii ba mu neex ma ah bon mu ne ah dañ commencé traîner ñu <laughs> waa Pastef la. ça APR amatuñu droit ñëw foofu non <laughs> dans la logique populaire. <laughs> mais boo yoree. mais est que est du dëgg d'abord laa la wax c'est que c'est même pas vrai. c'est même pas vrai ngor fii boo demee dernière fois la bagarre. ah je t'ai dit que il euh, y des policiers qu'on a soignés on leur a pas demandé s'ils étaient APR on a toujours soigné en respectant notre engagement et comme ni ma la ko waxee bénévolement gratuitement ah voilà ambulance bi dem foofu Ngor di dimbali bon Ngor laa dëkk bi ça tombe bien mais bi may fa fajuma waa Ngor yéen sama frère on lui a cassé l'œil avec une un lacrymogène ah jabaru jabaru benn euh, policier gendarme ñoo koy def boo nekk enceinte ñoo ko jëlee ci biir néegam génne ko pour le faire respirer donc côté humain boobu vraiment si ba ma waxoon ne accusé woon côté boobu vraiment ma tëdd suuf et comme le dit dans le serment d'Hippocrate ñëpp dañ may dañ lay bañ il y a des termes très graves ah parce que boo defee faute yooyu tu es banni voilà de banni de la, de la pas de la profession de la société